bon jërëjëf Adja nuyo bi pour Sénégal yëpp la. Mhm. di nuyu ñëpp gëj naa fi. mais liggéey rek moo ma tënk. Mhm. mais liggéey bi tamit duma ci sori football la. Mhm. parce que xam ngeen ne maa ngi génération foot. presque ça fait dix ans. ñu ngi liggéey ak sunu président Madi Touré mu ñuy xalal yoon wi daal ndax gis-gisam ci yooyu lañu sukkandiku pour liggéey léegi. li mu mën a wax. ci toog comment s'est ci toog dinaa ci ñëw. mais Amara ci boppam. defe naa ne yaakaaruma ko woon fii de. <laughs> bon nag Adja dama naan ak Grégoire <laughs> ni ñu àndal bu joué à quoi <laughs> mais nag mbégte rek. ndax quand même kii doom ndey la. man magam laa. Mm. li ma daan wax mooy am naa mag bu jigéen am naa mag bu góor mais yow loo ma wax lay def yola ànd bi fi mu commencé boobu mu ngi football mm-hmm. bi muy football di def ay jaloore ma nekk ak Peter Schnittger ma ne ko Peter am na jour boo xam ne il faut nga jëli muy gëñoo jaar na équipe national ba génn si mais gëñoo defaat na fa ay jaloore ba jël coupe de la ligue. Mm-hmm. te la mu fa dugal ci biir bari na te xaw nañ manqué buteur jëli bi nag mooy kooku mën na la yoral équipe bi yëpp parce que leader la te lider dafa baax ci équipe. Mm-hmm. mën na yor vestiaire yi ba nga xam ne bii coono dootul am ndax dé dina déggoo xale yi. mu ne ma bon nañ ko indi mais moom ci boppam dafa laa ni mu bëggee Sénégal moo tax tegu ci baat ànd bi nag dem di law ba mu jël doomam tuddee ma ko bon defe naa ne ànd bi àndu nawle la tey mbégte laa am fekk ko fii ndax yaakaaruma ko bi ma ko gisee muy wax dama naan kii lu mu fiy def mais ma xam journaliste ni ngeen mel mais da ngeen di defar parce que xam naa ne ku bëgg réewam la ku bëgg Sénégal la te jaral na ko lu ne ñu jàppee ko noonu ca fa mu dëkk la mu fay def mooy wane bëgga bëggeelam ci Sénégal tey kontaan naa fekk ko fi kontaan naa bokk ak moom plateau bi bul ma mere nag ndax sa plateau dama fay daan faral di ñëw mais liggéey bu bari moo tax ñëwatuma mm-hmm. mais footballu Sénégal sama loxo musu si jóg mm-hmm. réew mi lañu am moom lañu bëgg mm-hmm. tey ki yor équipe bi di Aliou Cissé kooku sunu footballkat la woon kii duma bàyyi ma wax lu amul fu ne jaar nañ fa ak moom di ko di ko jàppale ndax moom lañu joxoon capitanat te capitaine aussi duñ ko jox n'importe qui. Mm-hmm. defar rek respecter les équilibres atteindre des objectifs moo ñu mës a tax a jóg yàlla nag di dimbali na ci. Mm-hmm. parcours bi benn gàkk-gàkk amu ci. Mm-hmm. te ni ñu mel ñun ñaar noonu lañu fexe ba jour yi mel ko seen biir lu jafe la nag. wante boo gisee ñu àgg foofu def naa jàppoo bi ñu jàppaloo ndax équipe liñ dul gis ci équipe moo ëpp li ñuy gis ci équipe ndax nit ñi bu ñëwee match bi la ñuy seetaan mais li jiitu match bi ak bu match bi jeexee li ciy topp. la gestion du coup. voilà bon defe naa loolu moo tax ñuy wax équipe. d'accord